tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek sa fo site internet di buzz mtv Senegal bu leen fatte di abonné di buzz cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen xibaar dal leen ak jamm seen seen bi di buzz mtv ci seen acte des jours ki di may sa babu di ab professeur bir université cheikh anta diop bu dakar yëkkati na ay cadeau dal di xamal sénégalais yi que ne lu ki di président ousmane sonko jugon dal di attaquer kiñ paix président Emmanuel Macron di président ba ca France ne li ni mel bu juróon ab rupture diplomatique bu jaar ci diggante réewu Sénégal ak France ne réewu France moom moo ciy gën a ñàkk fopp ko réewu Sénégal si li ni kii di professeur Meissa Babou ne bu amoon ab conseil bu muy jox premier ministre bii di Ousmane Sonko dina ko wax que ne ci relation diplomatique yi nga xam ne ne réewu Sénégal seq na ko geneen réew yi na si jiital jëf wàññi ci bu baax wax ji ndax ne premier ministre bii di Ousmane Sonko ba invité kii di Jean-Luc Mélenchon ci réewu Sénégal ne jëf joojee ci relation diplomatique wu réewu Sénégal ak réewu France lu rëy la ci daal di tekki ndax ne li ni mel da doon tekki que ne kookee di Ousmane Sonko gis-gisam bokkul ak gis-gisu kookee di président Macky Sall ci relation diplomatique yi war jaar ci diggante réewu Sénégal ak réewu France ne jëfinu premier ministre bii di Ousmane Sonko rek akum wax la woon ne foofee nag le premier ministre bii di Ousmane Sonko waroon na yem warul woon a yëkkati ay kàddu di indexé directement kii di président Macron ndax ne ci relation diplomatique réew ak réew am na jëf yoo xam ne ne ñoom ñooy gën a fort ay kàddu yooyu yëkkati ginnaaw li ni mel kii di professeur Maïssa Babou daal di woyal ne premier ministre bii di Ousmane Sonko bu buggee réewu Sénégal daal di génn ci relation diplomatique coloniale bi nga xam ne ne dafa jaar ci diggante réew France ak réewu Sénégal na daal di orienté relation diplomatique yu réewu Sénégal jëmale ko ci Moyen-Orient maanaam mu daal di amal ay relation réewu Sénégal ak réewu Arabie Saoudite Qatar ak yi mel waaye tamit mu daal di orienter relation Sénégal yi ak waa Turquie ak waa Russie ne li mel bu ko amalee léegi mu di dok relation diplomatique coloniale yoy nga xam ne ne réewu ak réewu France depuis 1960 ba tay mom lañuy amal. ginnaaw li ni mel ki di Ousmane Diagne di ministre de la justice réew mi di Sénégal ne képp ku nekkon ci régime ki di président Macky Sall te ñu denkol la kopparu sénégalais nga jël ko daal di koy ne kookee boo tëddee waratoo ne lu sabab lu tax mu wax li ni mel mom moy kané ki ñu dippee président Bassirou Diomaye Faye di président wu kullu sénégalais daal dina koy jox ndogal ngir mu daal di joxe ab ordre de poursuite ñi nga xam ne ne ñoom lañ dippee procureur généraux yi ci réew mi di Sénégal ne li ni mel nag amal na ko te si lu yàggul dara procureur yi dinañ ibbi instriction daal di wax enquêteurs yi ñu daal di képp ki nga xam ne ne dañ la indexé ci rapport corps de contrôle ci réew mii di Sénégal bu ko defee ñu amalaat beneen enquête jëmale ko sa kaw te bu fekkee ne lu corps de contrôle yi wax enquête buñ amalaat sa kaw dëggal na ko ne lu leer ba am moom mooy que ne képp kuñ fi jiiñ ne daa détourné xaalisu sénégalais yi ne kookee dina génnee xaalis bi wala ñu daal di saisir ay biens ba noppi daal di koy tëj ci kaso bi. ne si mbir moomee nag bu kenn wax ko ne ñoom gouvernement bu bees bi. dañ cee singali waa régime kii di président Macky Sall ne na sénégalais yëpp daal di xam que ne corps de contrôle yi rapport yooyee ñu génnee ba kii di président Macky Sall di nekk président de la république ci réew mi di Sénégal lañ ko amaloon ne ñoom gouvernement bu bees bi dañoo sàkku rek ñu daal di génne waa rapport yooye ba noppi daal di topp ñi nga xam ne ne ñoom ñoo luubaloon alalu sénégalais yi ci régime kii di président Macky Sall ginnaaw li ni mel ki ñu dippee Alla Dieng di directeur exécutif ci mouvement bi ñu dippee Unacois Yeesal yëkkati ne ay kàddu daal di koy jëmale ci président Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am bii di Ousmane Sonko te ne li ni mel ñooñee dañ ko diggoon Sénégalais yi ci campagne électorale yi waaye ne lu leer ba am mooy que ne ñooñee mënuñ koo amal. si li ni mel kii di Alla Dieng lu kii di président Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am bii di Ousmane Sonko. diggoon Sénégalais yi ci campagne électorale yi te mënuñ ko amal du lenn lu dul luñ waxoon que ne dinañ daal di wàññi njëg bu ñuy jëndee lu ñuy dundee ci réew mi di Sénégal tax ne état bi lenn rek la mën ci mbir moomee te moom mooy mu daal di subventionné produit yi nga xam ne ne dañuy bàyyeekoo bitim réew waaye ne li ni mel bu ko état bi amalee ne lu leer ba am mooy que ne buñ wàññee produit yi bàyyeekoo bitim réew ne si lu yàggul dara. dinañ amalaat lu kii di président Macky Sall amaloon na te moom mooy muñ toogee lu tolloog at ci boppu réew mi ñooñee wàññi woon njëg bi ñuy jëndee ci di Sénégal ne ñooñee ñoom ñooy yokkaat njëkk lu ñuy dundee ci réew di Sénégal ndax ne bu fekkee ne subvention rek amal la ne budget état bu Sénégal attanut subventionné lu tolloog 65 pour cent ci produit yi nga xam ne ne moom la sénégalais yi di dundee ne buñ ko wàññee lu leer ba am moom mooy que ne ñoom si seen wàllu bopp dinañ ko daal di yokkaat nee nag lu war kookee di président Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am bii di Ousmane Sonko moom mooy ñu génn daal di wax sénégalais yi dëkk bi ci produit yooyee nga xam ne ne dañ koo nam wàññi ci réew mii di Sénégal ginnaaw li ni mel ku ñuy oowee Robert Bourgi di ab homme d'affaires français mercenaire cassé bu France ci réewu Afrique yi yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci lu kii di président Ousmane Sonko dalaloon ki ñu dippee Jean-Luc Mélenchon ci réew mi di Sénégal. c'est li ni mel kookee di Robert Bourginet kii di président Ousmane Sonko ba mu jëlee ndogal daal di dalal ki ñu dippee Jean-Luc Mélenchon di opposant numéro un ki ñu dippee Emmanuel Macron di président ba ca France ne. ba noppi daal di jibal ay kàddu daal di attaqué kookee di Emmanuel Macron ne li ni ba ko kii di président Ousmane Sonko di amal ci réewu Sénégal ne kookee dafa juumoon daal di commettre erreur bu mag ndax ne li ni mel mënoon naa daal di yàq relation diplomatique yu jaar ci réewu Sénégal ak réewu France te ne lu kookee di président Ousmane Sonko daal di mbubboo te muy que ne daa nekk président parti bii di Pastef te loolee moom moo sabab mu daal di dalal ki ñu dippee Jean-Luc Mélenchon ne lay boobee doyu ko ci li mel na ku ci amal ab càngat da ngay gis que ne kookee di Robert Bourgi taxawaayam mun ko koo daal di tëkkaleeg taxawaay ki ñu dippee Madiambal Diagne wala kiñ ñu dippee Cheikh Yérim Seck ginnaaw ba fi kii di président Macky Sall di nekk président ci bopp réew mi ci Sénégal ñooñee lu ñu waxoon suba ba ngoon kookee di président Macky Sall moom moo leen ko wax loo woon kookee di Robert Bourgi tamit lu mu wax suba ba ngoon na gouvernement bu France moom moo ko waxloo te li ni mel lu muy tekki tamit moom mooy que ne gouvernement bu France daal di nay répondre kiñ dippee Ousmane Sonko de manière indirecte daal di koy jaarale ci kiñ dippee Robert Bourgi lii lañ leen indiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox di daje ci yeneen i mbir incha allah.